rédaction mbokki internet yi safo di ñëw seetaan tous les jours ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am contenté comme ni ñu koy defee ñëwati nañ ci euh, point de la rédaction muy jotaay yi nga xamante ni dañ koy amal di ci waxtaane lépp loo xam ne si ni euh, actualité la rawatina les faits divers Moustapha Mbaye laa ci àndal nuyu naa la bu baax Moustapha maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di nuyu képp koo xamante ne yaa ngi ànd ak ñun ci suñu jotaay bi ñu amal bis bu yàlla sàkk te ñu koy woowee le point de la rédaction. ayca Moustapha tey waxtaanee mbir moo xam ne ci nii lu doy waar la muy xew ci école yi ñu koy woowee euh, flash cas muy benn phénomène boo xam ne si nii daanaka euh, mi ngi euh, yóbbu école yi ci ci ci loo xam ne si nii nekkul lu ñu ngi doy école muy ay page Facebook yoo xam ne ci nii ñu ngi koy créer ci école yi di ci dugal ay mbir yu doy waar yoo xam ne si mi ngi xew ci yooyu la école loolu nag ñu ngi koy inspiré ci série bi di Virginie euh, muy euh, muy Virginie di benn série boo xam ne si ni mi ngi mi ngi daw ci télévision yi ak euh, internet bi donc ñi ko produire di maro Marodi TV Sénégal donc ñoom ñoo produire boobu le film mu am benn flash ka nag muy benn nit boo xam ne si nii dafay làqatu ci benn page Facebook bu ñuy benn page Facebook bu ñuy tuddee flash ka di ci wax lépp loo xam ne si nii lu lu soxal école bi la waaye tamit muy nekk ay wax yoo xam ne si nii wax yu doy waar la maanaam ay yàq der maanaam suñ ko mënee tuddee noonu élèves yi ngay yiy jàng si boobu la école daanaka nag léegi mi ngi wër euh, phénomène boobu mi ngi di wër di def le tour des des écoles euh, donc gis nañ ci école yu bëree bëri yoo xam ne si nii ku ci nekk am nga sa flashka ku si mel ne flashka Sacré Cœur mu école Sacré Cœur euh, donc am na flashka Saint-Michel am na ñoom ñëpp ku nekk am nga sa école boobu yëpp ku nekk am sa flashka donc muy page Facebook yooyu nga xam ne si nii lu bon rek lañ ciy def di ci wax wax loo xam ne si nii wala di ci yàq ay der élèves yi jàng ci yooyu yooyu école Moustapha euh, phénomène boobu jamono ji euh, mooy def buzz comme ni ko ni ñu koy waxee euh, waaye tamit mu ngi def ay ravage mm-hmm. te daanaka dafay mën a jàpp ne luy dévaloriser école yi sénégalaises yi la waaw loo xamante ne la euh, dafay wane rek encore une fois comme ni koy ko yàggee di expliquer suñu série yi ak suñu scénario yi nga xam ne ñu ngi koy def il faut ñu bàyyi ci xel bu baax a baax surtout loo xamante ne particulièrement c'est destiné à un public jeune il faut nga xoolaat lan nga ciy def lan mooy contenu bi mais malheureusement fii bu boo waxee rek ñu ne Jamra mooy wax mooy kaas wala mooy kaas mm-hmm. dañoo yaakaar ne lépp loo xam ne dafa am rapport ak vertu dafa am rapport ak ak ak valeur dañ ñaan dañ naan mbirum jamra la wala loolu boo ko waxee ne jamono moo fay dox wala cinéma moo fay dox mhm. d'accord cinéma dëgg la mais dafa am yoo xam ne tamit euh, waru ñuy bàyyi mi mi mi ëpp di seetaan yenn seetaan yu bëri mhm. parce que lépp lépp mi ngi doore ci série boobu nga nga tudd léegi mooy Virginie su ma juumul mhm. lépp foofu la dooree parce ñoom ñoo am série bi ah, am ci kenn nit koo xamante dafay créer benn page Facebook la war page Instagram boo xamante kenn du xam ki créer page bi. Mm. léegi lépp loo xamante ne ñaawteef la lépp ko képp koo xam ne dafay génn ak élève wala képp koo xam ne dafay def lu ñaaw ci école bi dañ koy jël di ko bind foofu te kenn du xam ku ko fa bind. Mm. léegi élèves yëpp dañuy abonné ba boo liiree yenn témoignage sax dañ lay wax ne page

la am nay professeur am dañ leen fay accuser yoo xamante dañ leen ko xam ne dañuy dem jàllale information yi foofu après créer professeur bi te balaa enquête dem di ko seetal ak seetal ak yooyu deram yàqu na donc loolu pour man yaakaar naa ne mbir mu ñaaw la boo xamante ne euh, fi ñu ko tibbee ci si si suñu si la bokk parce série lañ ko gisee jël ko série bi

ka moom kaala boo xam ne si nii war nañ ci taxaw bu baax a baax ndax euh, luy yàq euh, école yi la loo xam ne si nii tamit euh, jaar nañu taxaw seetlu ci parce que yaa ngi koy wax ne ay ay ay nit la ñuy envoyé ay photo am yoo xam ne si nii flash ka yoo xam ne si nii ci élèves lay nekk mu ngi ci mm-hmm. école bi xam lu fi xew nekk ci seen biir di wax comme tout le monde mais alors que moom moo nekk derrière tout ça loolu aussi war nañ ci def ay enquête mu ne ci ay enquête mais il faut responsable école yi tamit ñu ñu ñu def ay ñu interpeller ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ci war a jóg wala gendarmerie ñu def ci ay enquête teg ñooñu nga xam si ne def jëf ju ñaaw jooju euh, ñu teg leen loxo. waaw responsable école yi parfois dafay jafe sax ñu xam ko parce ñoom toujours volet administratif bi la ñuy gën a a bàyyi xel mm-hmm. yooyu nga xamante ne ay rumeur la ay information la yoo xam ne parfois du fondé mm-hmm. xam nga yooyu élèves ñoo koy ngun ngun seen biir professeur dugg mu classe ñu yëkkati ko ne kii dañ koy xoolee wala kii bët bii lañ koy xoolee mm-hmm. xanaa nga am benn proximité ak benn élève boo xamante ne moo lay ne monsieur ndax yëg nga nàngam wala yëg nga sàngam wala élève bi ne lii wala lii lañ fiy coow yi nga jot si mm-hmm. mais bu dul loolu tey duñ dem ouvertement jàkkaarloo benn surveillant wala benn professeur ne que yow wax lii wala diw ak diw mm-hmm. xanaa nga dégg ko ci ay ondi rek ba mu ba ba du yomb école bi gaaw koo maîtriser maintenant léegi nag nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw compte yooyu mii mbir moo xamante ne yaakaar naa ne waru mën a jaaxal parce que fii ku xam cybercriminalité ni muy doxee ak ni ñu amee doon ak ñu xaraña fa nekk buñ ci jógee ay fan yu néew rek war nañoo mën a jàpp képp koo xamante ne yaa ngi ci ginnaaw compte yooyu di di mm. publier yoo xamante ne ay données privées la yoo xamante ne yaa ngi ci sacrifié yaa ngi ci mm. yàq avenir jàmbur yaa ngi ci yàq image jàmbur donc bëri pour xale yaru du da ngay sukkandiku si si weer nit parce que mm-hmm. doo jël lu ñaaw di ko fajee lu ñaaw mm-hmm. déjà def na lu ñaaw pare mënoo koo weer di ko di ko fajee lu ñaaw mm-hmm. et loolu beneen mbir la boo xamante ne rek pour man euh, école bi war na ci bàyyi xel d'accord mais dama yaakaar ne ay kilifaam ñoo ci war a gën a mën a taxaw parce que ñooñu mën nañu ànd ak service police mm-hmm. mën nañu ànd ak ay enquêteur fexe ba xam ni nga xamante ne ñoo teg compte yooyu ñu jàpp leen su ko defee ñu teg leen daani ba nga xam ne yooyu dootul amati ci école yi waaye tamit fa mu jógee war nañ ci bàyyi xel bu baax muy euh, série boobu ma tudd léegi muy Virginie euh, laal nga ko ci sa ci say say sa ndorteel donc muy euh, production boo xam ne si Marodi TV Sénégal moom moo ko def dafay dafay dafay dafay dafay tax rek Moustapha ñu taxawaat ci série yi nga xamante ni dafa dañ koy dawal ci suñu télévision yi wala ñu koy dawal ci yenn chaîne YouTube yi nga xam ne si ñun dañ ciy am accès ah, donc euh, li mu mën a yàq. ndax c'est la première fois je pense ñu am benn série boo xam ne si nii ay adolescents kese ñoom ñoo ci nekk ñu koy tourner à l'école donc loolu gis nga eh, instant bi effet bi mu def ci ci li nga xam xamante moom mooy école donc bu ñuy wax ne li ñuy def ci série yi nañ ko xoolaat nit ñi naan non ku bëgg seetaan seetaan ku bëggul seetaan nga bàyyi lii la ñuy bañ parce que gis nga série bi moo moo moo moo moo pratiquement moo poussé nit ñi ci école yi mu élèves yi ñu ñu amal li nga xam ni moom mooy flashcard te flashcard boobu ci série visionnaire lañ la lañ ko doon gis donc war nañ xoolaat aussi bu baax a baax série yi nga xamante ni mi ngi daw ci télévision yi. mais war nañ ko xoolaat bu baax a baax mais loolu pour man responsabilité waa CNRA la ji booy def série.

bàyyi ñi defee noonu mm-hmm. parce que sama tey ji lu mel ni wàllum éducation pour man dafa sensible mm-hmm. éducation santé sécurité ay domaines yoo xam ne dañoo stratégique yu sensible la mm-hmm. ci biir éducation bi mën nga fa mën nga fa defaree ab askanu lëmb mën nga fa yàqee askanu lëmb mais su fekkee da nga toog di seetaan rek yàcc yàccaaral jéem moo def benn effort ba ñuy nasaxaa sa askan te malheureusement agression bi agression externe la daan doon mais léegi agression bi ñu dund si ñun lay bàyyi ko a grave parce que lu tax mu gën a garaaw mooy ñi nga xam xam nga tey jii xale bi mën nañ seetaan film tubaab bu doon film yenn feuilleton yi dañ naan ñi bokk leen culture oh. maamam wala papaam bu gisee ñu def ne dañ naan ñii jarul ngeen deen imiter parce bokk leen culture du ngeen benn mm-hmm. mais tey jii imagine toi benn Mahfouz toog di seetaan mu bokk ak âge mi ngi am 15 an 16 ans gis benn paate wala benn demba mm-hmm. di dund même chose si école bi mu koy def ci biir classe am am amee code xale yu jigéen ñi ay ñu wut ay xale yu jigéen yoo xamante ne ñu topp ko mhm. mais danaan mooy pourquoi pas ma def comme kii parce que bu ñu fàtte ne âge bi nga xamante ne ñoom ñooy joué film boobu noonu mooy adolescent la ñu te adolescent ñëpp xam nañu âge la boo xam ne dafay dund ay mutation kooram dafay am mutation am ay transformation yu dund mais de façon psychologique mhm. ba tax na dañuy wax sa xale bi dafay soxla benn accompagnement boo xam ne daf koy war a am pour ñu dimbali ko parce que soo ko dimbalul dafa nekk ci benn phase transition de sa vie dafay jóge mhm. te nekkul mag ba tax

mu demee pourquoi parce que dañuy gis seen bopp ci série bi waaw dañuy dañuy gis seen bopp te comme ñu ngi gis seen bopp série bi série boobu waruñu série def contenu du n'importe quoi mm. pour man série bi la war a njëkk incriminer balaa ñu wax xale parce que lii jiig ñaak ñoom ñooy ñaak mm. te lii nag dafa war a doon benn benn leçon boo xam ne daf ñu war a servir prochainement série boo xam ne dafay jëm ci xale jëm ci mag mag sax on peut comprendre parce que ñoom dañ seetaan ak benn filtre boo xam ne dina leen dimbali loo xamante dafa jëm ci adolescent jëm ci a gis koo xam ne dafay ubbi xaalam rek na xale bi dama seetaan Mickey toog mi seetaan Mickey na ñoom ne ay lubi ay homosexuel ak ñeneen jënd jouet romb jël benn jox mais xamoo jouet bi lan la

xamul ci dara xamul ban mike lay joué am na mike yoo xam ne da ngay gis ne ñu commencé fóonante te amul woon ci mike mm, mm, mike bu demee bay fóonante àddina tukki na waaw xam nga nag loolu tey ji waajur bu si bàyyiwul xel deful benn effort mm. yaakaar ne lépp lu ñu wane si télé bi rek baax na wala kii la donc musiba lay jur et je que tamit euh, suñu série war nañ jéem wut benn bu dee CNRA mi ngi fi mais ñu beneen kuréel beneen kuréel boo xam ne série théâtre sketch rek la tax a jóg balaa moo jàll nga dem joxe ji ñu seetaan ñu dem seetaan ko bu mujjee mhm. xool nañu bu ko defee di fa dajale sociologue bi mhm. di fa dajale enseignant bi di fa mhm. dajale ñu corps de yu bëri yoo xam ne bu ñu fa dajee bu série bi génnee balaa nga benn droit diffusion si télévision yi da dem nga tegal leen ko ñu seetaan épisode bu nekk seetaan épisode ne la lii dindi ko lii yi toog dafa sa duñ jóg yi en euh, yi day ñoom yëngu nañ daanaka comme ni ma ko waxee ci njëlbeen bi rek école yi pratiquement Sénégal léegi école yëpp am nañ flash card donc mhm. euh, daanaka école bu lan boo dégg Sénégal rek boo nee flash card boo moytu a flash card boo mu nekk loo xam ne si ni booy boo ñu ñi ci war a jóg-jóg ci dem muy muy mhm. soit mu nekk le ministère de l'éducation euh, soit mu nekk loo xam ne si ni tamit euh, le mhm. ministre de l'intérieur donc ñu xool ñan ñooy def loolu mhm. ñu teg leen loxo parce loolu moom jëmul kër euh, te yaakaar naa dafa yàq lu bëree bëri même ci série bi sax ñaa ngi gis ne ay affaire de clan la def ci mhm. école bi ñi xeexante ba ci am ay xam nga yooyu yëpp ci biir école bi lay am te ay xale yu ndaw ñoom ñoo koy def te ay xale ñoo koy seetaan comme ni nga ko waxee public bi def à l'école ah. bu hmm. demee même yeneen histoire yi ñuy def ci biir ci biir série bi am na ñoo xam si te dañ koy bëgg dund seen école di indi hmm. ay clan ak affaire yooyu hmm. kii lay àndal wala du ma ànd kii ak dugg na fii ak génn na jaay affaire de star man maay star école bi affaire yi xam loolu aussi il ñu bàyyi ci xel parce que loolu yóbbu ñu école et loolu taxul ñu defal école dañ école dañ ko tabax pour ñu ci yar xale yi pour ñu seen ci jàngal lépp loo xamante ne discipline discipline la wala yar la ñu fexe ba def ko ci xale yi. créer benn émulation ñu fexe ba nga xamante ne li ñuy gëm mooy jàng bi ñu mettre en avant études yi. Mm. mettre en avant réussite bi mettre en avant yu bëree bëri mais da ngay gis ñoom dañuy côté bi ñuy gën a mettre en aspect en exergue mooy réseaux sociaux yi. Mm-hmm. clan yi am diggante góor ak jigéen waxtaan kii moom ma waxal lee kii moom waxal lale c'est-à-dire fi ñu fi ñu orienté xale yi soxlawuñu fa sunu xale sunu doom yi soxlawuñu leen fa fi ñu leen soxla mooy ci njàng mi. Mm-hmm. toppee daf leen di soli cours parce que am na yoo xam ne dafa nekk ci cours am na mu ne extra scolaire la mhm. léegi lu extra scolaire boobu nag waroo dimbali xale ñu focaliser fa mhm. loolu mooy xale bi nga xam ne comportement ki muy àndal ci école moo koy ëppal cours bi muy jàng mhm. donc yooyu nga xamante ne dañoo nekk ci école bi jege école bi warul doon loo xamante ne dafay doon benn benn benn élément dafay polariser attention élève bi lu gën gëm da digganteem ak élève bi di wax élève bi di tontu bëri na yoo xamante ne pour man euh, pédagogie mayewu ko. Mhm. parce que booy def di wax ci éducation pour man li jiitu ak li waru njëkk rek mooy inspecteur de l' éducation am ci kàddu. Mhm. ay professeur émérite am ci kàddu. ku nekk ñu fexe ba nga xamante di nga joindre l'utile à l'agréable waxuñu leen ngeen def cours série boo xamante ne rek da ngay wane ku nekk salle bi di jàng kii am 20 kii am 18 kii sa message ah. te doo te doo offusquer kenn hmm. doo doo doo doo doo froissé kenn hmm. noo koy defee mooy nga xam ni ngay demee ban pédagogie ngay utiliser te loolu pour nga def ko il ne dañ ci dañ bu baax a baax hmm. parce que te ay kàngamu école tënkuñu sëriñ wala binduñu ko mm. nga gis koo xam ne day sëriñ si tribunal te wax waxul ak juriste wala ay ay ay ñoo xamante ne homme de droit lañ mm. tënkuñu ko wala ñu nekk ci biir dañuy demee seen xel ak wala seetaan naa ko wala dégg naa ko et loolu c'est éviter mooy waral nag parfois euh, message bi fi ñu ko bëggoon mu yegg sax du fa yegg en tout cas nekk na loo xam ne si nii Moussa Fallou day war jamono ji euh, yëngal na Sénégal flash ka la euh, cas boo xam ne si la mm-hmm. donc mi ngi yàq suñu école yi toll nii pour loolu pour jàng la euh, ñu jox suñu suñu suñu rakk yi wala suñu doom yi xam-xam ah, mais mais pas ñu leen di ñu leen di divertir te lii ñu gis nii moom franchement euh, te série boobu aussi war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax mm. Moustapha parce que bi mu commencé yàggul mm. mais gis nañ ni euh, mi ngi commencé di influencer bu baax a baax a baax suñu école yi il faut ñu ñu ñu bàyyi ci xel bu baax xam naa dama lay bàyyi rek nga daal di nga daal di tëj Mhm. ñu daal di yëkkati jotaay bi. waaw xam nga entreprise cinématographique bi fi ñu toll nii dañu jël benn envol boo xamante ne pour man kilifa yi ngi seetaan. Mm-hmm. te ñi ngi seetaan boo waxee ñu ne waa Jamra ñu ngi wax dañoo ñii dañoo bëri wax wala ñële ñoo war wax déedéet ñi ngi jël envol boo xam ne bërki démb wane nañ fi ñoo xam ne naka sudul noonu si kaw benn laal mm-hmm. ñu ne ñi li tax def ko dañu dañu dañu wut parce que boo ko defee Sénégal ñëpp kay ñaawlu bu ko ñëpp ñaawlu ñu dem seetaan ji ban série la mm-hmm. parce que da gis ku ko publier sax ñu suuf commentaire ñu ne ban série la bu ñu jógee ci loolu ñu indi ay séries yoo xamante ne dañuy identifier wu ak waa Europe yaakaar na ñun waa Europe lañu. d' am na yoo xam ne il faut nga adapté ko comme ni ko Kizere ba doon waxee développement prêt à porter il faut que ñu koy moytu waaye tamit il faut que ñu moytu yenn concept yoo xam ne prêt à porter la da koy pare fële jële Europe rek indi ñëw teg du noonu. am na yoo xamante ne boo defee boo ko boo ko boo ko importé da nga jële ay mbir yóbbu ko foofu am na yoo xam lu ñu bëggul mu jàll du jàll dama la jox benn exemple bu ndaw rek am na tout récemment temps yi passé benn benn formulaire bu fii buñ bu ñu woon Sénégal man je connais bien les ki ñu ko lancé woon pour ñu criminaliser homosexualité au Sénégal mais plateforme bi ñu ko def dafa def 48 heures ñu supprimer formulaire bi dañ koo disparaître ci internet bi mmh. nit ñi commencé nañu adhérer di ko pour vous dire que ñoom seen objectif dañ cee nekk ñoom li ñu nekk dañ cee nekk ñu dafa commencé di raw dafa commencé di leen raw il faut que ñu def ay jéego pour mën a pour koo ñag bu baax a baax ci mbir maa noonu muy flash cas euh, problème mooy nga xamante ni ñu ngi koy gis ci euh, yi mu indi jafe-jafe xam si nag euh, jamono yi ñu ci ñu ngi ciy wax yéen aussi yéen ñi seetaan am ngeen ci seen kàddu mën ngeen jox seen xalaat ci nga xamante ni moom moo di di jaajëfal Libas ak Oumou Ndiaye ñi ni ñoom ñoo nekkoon ci wàllu réalisation bi ak technique bi waaye kenn demul ngeen des yéen ñi nga xamante ni yéen ñi topp tous les jours ci Sunugal 24 di suivre suñu ay programme nekk si biir réew mi wala bitim réew di leen jaajëfal di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen